ak euh, juróom kii euh, ak euh, sept cent sept cent franc sept cent franc xaalis mu doon weccet bu mu doon ki pièce pièce cinq cent wala kii wala billet day doon kii par weccet mu am juróom mu am fukki dërëm mu am cent franc mu am deux cent noonu la koy weccee après mu def ci eh, ay guro guro eh, juróom benn guro yu weex après ñu def ko ci ndox mu fanaan ba ci ba set bi après ñu génnal eh, kii bi ndox mi ñoom ñu ñu sàngoo ndox mi après kii bi sondel yi mu sara ko ay taalibe ñetti taalibe hmm? ñetti taalibe sondel yi mu sara ko ñetti taalibe kii bi nag mm, tëddate mm, sept cent bi 700 bi mu saraku ñett jigéen yoo xamante ne yu yu néew doole yu néew deelu euh, ñu yerwaan yi ñetti jigéen jigéen euh, mun na nekk ñu ñu am ay seex mun na nekk ñoo xamante ne ñu kii na na rek ñu néew ji doole ñu néew ji doole waaw juróom ñett juróom ñett eh, kii ñett jigéen laa doon wax dama jiw xam nga da ngay comprendre rek sama olof bi da comprendre ah, eh, kii kii ak li ah, kii bi nu mu tuddee sax hmm, guro bi mu jokko eh, ñaari gumm ñaari gumm mu mu ko mu jokko ñaari ñaari gumm mun na doon. Ah, mun na doon uh, ku jigéen mun na doon mun na doon ku góor bu fekkante comprendre nga li ma wax après uh, nga delluwaat si man tamit comprendre noo ko après uh, nga dellu ci man tamit mm. nuy naa lu bëree